ñoom yoon moo leen. da nga ne ñoom yoon xali muy Khalifa Sall muy Karim Wade euh, muy Ousmane Sonko d'abord je commence moo leen non man Ousmane Sonko waxuma yoon yaa wax. Khalifa Sall ma jox ko exemple da nga tënk. mais yàlla dafa def euh, yoon boobu tënk ñoom Khalifa Sall. bariwul sénégalais xanaa nga bokk bennoo bokk yaakaar bu gëm ne yoon daf leen tënk ci yoon dañ leen tënk ngir empêcher leen ñu bokk ci élection présidentielle 2019 ñu utiliser des mécanismes constitutionnels judiciaires juridiques pour empêcher leen de compétir non c'est un constat bind si sa non non xaaral ma laaj la. c'est un constat waaw xaaral ma laaj la. lan la bind si acte de condamnation de Khalifa. c'est un non dama lay laaj lan la. moo indi condamnation bi loolu moo tax kenn mënul nangu condamnation bi. Karim Wade anam bi ñu ko jugé. moo tax kenn mënul nangu. Euh, condamnation bi et fina in les gens retiennent que. Karim Wade et Khalifa Sall. Euh, dañ leen entravé pour que ñu bokk ci présidentielle. et aujourd'hui c'est le Khalifa ak Karim Wade mën a bokkaat mais président de la République yoon daf ko tënk. waaw xaaral rek xaaral ma constitution daf ko tënk xaaral ma ba pare léegi suñ ñoom ba pare ma ne du ma fi nekk di di euh, comment dirais-je euh, commenter décision justice. Euh, je respecte beaucoup les et la justice ci ñoom ñu may dëgg xam nañu mes liens avec la justice ku ma yar c'est un magistrat donc euh, du fi nekk di ko commenter mais lu ma xam mooy que yoon bu leen tënk noonu moo tax ba déposé nañu candidature conseil constitutionnel mu ne yéen mënu leen nekk candidature. on s'est arrangé pour modifier la pour modifier le code électoral à l'Assemblée nationale. président de la République de la. par le biais d'une majorité mécanique. président de la République yoon moo ko may loolu c'est plus un débat parce que dëggulu ma la wax ma ne sooy dem ci dialogue da ngay dem ak loo bëgg a am loo am ci constitution. ba pare doo ko doo ko doo ko def si point de débat ñoom bu ñuy dem débat la ñu la ñu régler la question de la légalité de la troisième candidature du président ah, Macky Sall xaaral rek dañ ko régler parce que man su may dem ci débat su may dem ci débat ma xam ni président Macky Sall amul droit troisième mandat du ma ko bind si point de débat yi man su ma nekkee politique conséquent damay ne kii amul droit donc duma ko bokk yeneen point la yoo xam ne bëgg naa ko am mais bii point yoon jox na ma ko ba pare. su ma ko dugalee rek xaaral ñoom dañu dugal seen candidature parce que xam nañu ni yoon mayu leen ko suñu dugalee candidat éventuel troisième candidature du président Macky Sall parce que ñoom xam nañu ni yoon may na ko ko. mais ñu ne ñu président ñuy laaj xol ñuy laaj président yoon may na la ko ah ñu ngi de bëgg nañu luy suñu yéene tey dëkk bi fu mu toll nii. président dëkk bi fu mu toll nii président président Macky Sall constitution daf ko tënk. mu tënk boppam ak kàddoom. dëkk dëkk bi fu mu toll dëkk dëkk bi fu mu toll ni duñu président de la république bi commencé processus de développement de notre pays suñu dëkk Afrique yëpp dëkk monde bi yëpp di ñu naw. le Sénégal du futur sera bientôt dans quelques. Trump dafa redresser dafa redresser économiquement l'Amérique teewul mu dem élection américain yi dàq ko rek un premier euh, un pays producteur de pétrole. président de la République soo gisee ñoom bëgguñu mun a dem candidature parce que il savent kii a moom moo amaat majorité moo continuer di am majorité des Sénégalais. ñun ñun ñun ñu nekk parti majorité présidentielle ñëw wax Sénégalais yi suñu combat c'est exercer le pouvoir combat pour am jël pouvoir bi exercer ko continuer de l'exercer ñu ne ñu suñu meilleur candidat boo xam ne il a il en a le droit il est le meilleur candidat ba pare il est le meilleur candidat pour le Sénégal actuellement avec les menaces terroristes avec les menaces de tous bords yow respecté woo le reste dëggul ma la ma ne ma ne man. yow respecté woo yeneen Sénégalais de eh. Abdoulaye Wade bi mu fi jógee dafa foogoon ne après lui ce sera ma loolu de dama ne y a pas de Sénégalais capable de diriger ce pays là à part Macky Sall. dëggul bu mu la wax ma ne la ñun dañuy dem si xeex soo sooy dem si xare da ngay yóbbu sa meilleure arme ngay njëkk jiital. pour nga daaneel boo xeex bi. bu yàgg na fekk ngeen am autorisation dëgguma la man xeex autorisation dafa am autorisation de port d'arme kenn amul droit yor arme te amul autorisation booy dem ci compétition électorale da ngay am légitimité déglu ma déglu ma déglu ma légitimité may mun a bu ñu si wax parce que ñoom réglé nañ ko pare bu ñu ko dugalee point bi woowu wax naa la la légalité de la candidature du président de la république ça ne se discute pas léegi nañ ko ñu fi toogoon tam keroog euh, muy kii muy sama sama xarit bi Barthélemy toog na fi mu wax ko fi mu ñëwaat mu ne dafa juum juumul de arrangé wu ko moo tax mais mais moom ku ko xam mu xam ni il a il il il a le courage de ses idées donc moom xam na ni président Macky Sall il a le droit de faire un troisième candidat donc ñun mënu ñëw majorité présidentielle ñu am suñu maire candidat boo xam ne euh, premier tour il gagne les élections continuer liggéey dëkk bi Sénégal soxla ko avec toutes les menaces ñun ñu ne dañuy présenter leneen ma ne président Macky Sall mooy suñu candidat candidat te man ñu dem ñu ñuy représenter si dialogue bi il faut que ñu xam ni euh, koo xam ne mënul nekk candidat soo ko ko bàyyilee bàyyi nga déjà lu bëri bàyyi suñu ba waxtaanee ay non candidature de Macky Sall loolu day ëpp. kon kon yéen euh, lii ñi demul ci jaloog ba wax yaa ngi koy dëggal parce que ñi demul ci jaloog bi euh, bari na bari na bari na waa coalition ñu bokk coalition Yewwi coalition Yewwi Khalifa Sall rek moo ci dem bari na ci ñoom ñoo xam ne nee nañu débat bii ngeen di woote yëpp c'est pour mën a jàllale li nga xam ne moom mooy troisième candidature bu président euh, Macky Sall yow yaa ngi dëgg lool parce que yaa ngi naan nañu bu ñu bëggee présenté wu nañu bàyyil suñu candidature mu mel ni genre deal la c'est-à-dire taisez-vous sur ma candidature et je vous laisse euh, aller aux élections c'est ça ma ne gars yi suñu xoolal suñu tey dialogue bi su amoon sax bu dee loolu d'accord ñu si sax gars yi dinañu continuer wax su am loolu dialogue président de la république bu dee dafa décider Macky Sall dafa décider dem candidat day def candidat kenn mënu si dara parce que loi dëkk bi fii dañ nekk si Sénégal loi bi constitution la ñëpp a ko bokk constitution bi nee na am na droit nekk candidature am na ko droit. loolu duñ si wax. léegi moom léegi moom léegi moom yow. lan hmm. ngay def ci déclaration yi mu def octobre. Euh, 31 décembre 2018. defaat ko avril 2000. Euh, bind naa si avril 2019. Euh, bind naa si mu ne. yow xam-xam ni man mandat bii may daagaan ci yéen mooy sama dernier mandat man maa jël constitution bi vérifié ko ba kenn mënatul def lu ëpp ñaari mandat dëggoon wax boobu la fan nga koy non man lu ma si wax man dem si bind tribune nee naa va la troisième candidature du président Macky Sall ne ne souffre d'aucune euh, en tout cas euh, irrégularité euh, sur le plan juridique. mais moom waxam xaaral ma xaaral ma ma ma ne. après ma ne bay ma kay ma répondre may mun a sur le plan euh, juridique je veux dire sa sa sa parole n'a pas de n'a pas de de valeur constitutionnelle man maa ko wax ma ne la parole du président de la République même mu nekk Macky Sall n'a pas de valeur constitutionnelle par ma ne ma terminer la décision de sa candidature devient alors une décision politique ak personnel pas parce que président de la République c'est une rencontre entre un peuple et un homme moom moo koy décider mais le reste buñ ci wax affaire constitution buñ ci wax affaire yi wax wax na lii waxoon na leen ça n'a aucune valeur constitutionnelle man Sénégal lu ñu tënk c'est la constitution man ci laay ci laay xam nga dafa am